arbitre bi ngi waaj a sifflé Ibrahima combat bi dox ci diggante Pape Diouf ak Boy Lo <laughs> combat social baa ngi noonu Pape Diouf moo la féete ndijoor Boy Lo moo la féete càmmoñ ndaysaan ñoom ñaari xale yi ñu ngi lewaatoo mbokk yi Pape Diouf moo féete ndijoor moo ngemb ngemb xonq li Boy moo la féete càmmoñ ndaysaan ngembo ngembu Lagos bi ñu ngi lewaatoo Pape Diouf cokkaas na Pape Diouf cokkaas na léegi Pape Diouf boyloo boyloo Pape Diouf Pape Diouf boyloo ndaysaan arbitre bi sifflé na arbitre bi sifflé waat na woo na leen ci diggi géew bi kaay leen lépp fii lay xewee arbitre bi siflé waat na Boy Lo Pape Diouf Pape Diouf Boy Lo ndaysaan Pape Diouf Boy Lo ñu ngi lewaatoo ñoom ñaar Pape Diouf cokkaas na Boy Lo fayu na jege nañ saaku yi ñoom ñaar Pape Diouf Boy Lo jege nañ saaku yi Boy Lo tuuse Pape Diouf tuuse na ku boobu baax na ah Pape Diouf Boy Lo Pape Diouf daw na cokaas ko ñu xeex laa ilaaha illallaah gala jaa ngay dagg Pape Boy Lo Pape Diouf combat bi munul yomb ndaysaan Pape Diouf na xeex bi baax na te en plus am na lecture ci combat bi ñu xool ñoom ñaar fu ñuy mujj Pape Diouf Boy Lo Pape Diouf cokkaasaat na génn nañ saaku yi Boy Lo ngay fayu génn nañ saaku yi kaay leen ci géew bi la lépp di xewe ndaysaan Pape Diouf Boy Lo avertissement pour Pape Diouf arbitre bi sifflé waat na mbokk yi ñu ngi noonu waaye loo mën a xam mooy stade bi dafa lëndëm tris stade bi li muy rëy rëy rëy six la mooy tàkk six ñaari projecteurs yu ta jàkkaarloo benn tàkku ci fii la ci Mar tey ak Boy Lo Pape Diouf cokaas na yondu na Boy Lo fayu na Pape Diouf Boy Lo ñu ngi dox ci koom Pape Diouf daw na jëli Boy Lo ngay dóor ndeysaan Boy Lo Pape Diouf dóor mu daanu wala daw jëli na ko arbitre bi àtte na arbitre bi àtte na laa ilaaha illallah tey eh. Pape Diouf ak Boy Lo avertissement Boy Lo ndeysaan ñoom ñaar ñu ngi wàcc combat bi mbokk yi Boy Lo Pape Diouf Pape Diouf féete la ndijoor Boy Lo féete la càmmoñ ñu ngi lewaatoo ñoom ñaar Pape juuf Boy ndaysaan Boy Lo Pape Diouf Boy Lo Pape Diouf dinañ xeexaat ñoom ñaar ñoom ñaar ku ci moytuwul sa mun na laa dóor nga daanu Boy Lo Pape Diouf Pape Diouf na Pape ñu ngi ci combat bi ba tey ñoom ñaar Boy Lo Pape Pape Diouf Boy Lo Pape Diouf Boy Lo ndeysaan ñoom ñaar a noonu Pape Diouf Boy Lo saan Pape Diouf Boy Lo Pape Diouf daw nañ jàppante ba tey dara xewagul ñoom ñaar Pape Diouf Boy Lo waaye Boy da ko seen jàppante na ñoom ñaar Pape Diouf Boy Lo lan moo nar a xew Pape Diouf ndeysaan ñoom ñaar jàppante nañ ñoom ñaar Pape Diouf loxo càmmuñ bi jàpp na Boy Lo loxo ndeyjoor bi jàpp na ñoom ñaar lan mooy xew Pape Diouf Boy Lo laay laay la laa awaay finaalu ay see éco bi fu mu toll nday ndeysaan entente cosaan ak Océan final bi fan la toll ndeysaan ñaari xale yaa ngi jàppante ba tey Pape Diouf ndeysaan arbitre bi àtte na kaay ku dem ardo Pape juuf dem na ardo Pape dem na ardo bi sifle waat na ba Pape Diouf demee ci ardo bi ba ñëw la arbi bi sifle waat ñoom ñaar Pape Diouf ndaysaan ak Boy Lo lan moo nar a xew ñoom ñaar Pape Diouf Boy Lo ndeysaan ñu ngi noonu combat yaa ngi noonu ndeysaan Boy Lo ak ak Pape Diouf Pape Diouf cokkaasaat na Boy Lo delloo ko ndaysaan Pape Diouf Boy Lo Pape Diouf Boy Lo Pape mu ngi lewaatoo mu ngi dox ci kawam. Ndeysaan cokkaasaat na Baye Balla Mbuub mooy wax noonu ci aas mbay Mbaye Ndeysaan ñu ngi lewaatoo ñoom ñaar ñu ngi lewaatoo Ndeysaan cokkaas saat ñu ngi cokkaas mu ngi ñëw cokkaas saat na Ndeysaan Pape Diouf li muy cokkaas mu ngi dem Pape Diouf ak Boy Lo combat bi mu ngi noonu ñu ngi lewaatoo ba ñu ngi lewaatoo ba tey Pape Diouf Boy Lo cokaasaat na ñu ngi leewaatoo ñoom ñaar ndeysaan ñu ngi noonu di leewaatoo ba tey combat bi ngi bëgg a yàgg nag xale yi bëre leen Pape Diouf Boy Lo mu ngi dox ci koob ñoom ñaar fan lay mujj Boy Lo Pape Diouf Pape Diouf Boy Lo Pape Diouf Boy Lo Boy Lo daw na jëli ko fu mu jëm moom. arbitre bi sifflé waat na yaa ngi ci saa bi oh arbitre bi jàll yaa ngi waa yaa ngi ko gaay arbitre bi sifflé na bàyyi ko rek am ko sama sama noonu ci combat bi ñu ngi ci combat bi ngi ci combat bi mu ci combat bi ndeysaan ñu ngi xeex ñu ngi xeex ñu ngi xeex may may ñu ngi xeex ndeysaan ñu ngi xeex ndeysaan ñu ngi xeex cey yàlla gi ngi ndeysaan ñu ngi noonu ñu ngi jàppante ñoom ñaar Pape Diouf booy loo Pape Diouf Boy Lo Pape xam nga mbokk yi coow li di dégg sànq kii Pape Diouf magam bu mu bokkal ndey baay xaw ma rakkam site internet la yor nekk caméraman di filmer muy bekkaay jaadu rakkam di bëre toll ci yenn situation deret fort deret sot mu jug dem ci magam wax ak moom dellu siwaat ci bërëbu liggéey kaayam nañ ko ko may mais ñoo di woo agent yi naan ko jugal na jug na dem la ko yëkkati xamu ko deret la loolu deret la ah deret dafa arbitre bi ay waaj a sifflé combat bi doxaat ci diggante Pape Diouf ndeysaan Pape Diouf ak Boylo Fab Diouf premier temps bi ñu ngi ci deuxième mi-temps bi ndeysaan arbitre bi sifflé na Fab Diouf moo la féete ndi joor Boylo moo la féete càmmoñ ñu ngi lewaatoo ñoom ñaar Fab Diouf cokkaasaan na Boylo ngay wuy Boylo Fab Diouf combat bi bi dina gaaw Pape Diouf door na ko ñu ngi xeex Pape Diouf Boy Lo Boy Lo dox na ci koom Boy Lo dox na ci koom bu ñu xeexee rek Boy Lo doy gëtëg dox ci kaw Pape Diouf door ko góos dooraat na góos Boy Lo répondre Pape Diouf Boy Lo Boy Lo Pape Diouf fu ñuy mujj booy loo Pape ñu ngi lay waatoo booy loo daw na Pape Diouf jëli na jàppante ne bëgg na ko plaqué mu bañ moom booy loo Pape Diouf koy déglu Pape Diouf dugal na loxo bi faqan na ko daan na ko daan na Pape Diouf Boy Lo daan na Pape Diouf jël bu amul benn werante Boy Lo daan na ko ndaysaan da ko busulu muy dem mu accompagné ko paquete tànk bi daan ko jël bu amul benn werante ndaysaan daan na ko ndaysaan Pape Diouf daan ko jël bu bett waay ndaysaan ñuy waaj a ñëw ci dañ dëpp gi dox ci diggante Papa Boy Djiné